Merci beaucoup, Ahmed Aïdara. wute ngaak ñenn ñi nga xam ne dañoo falu ba pare fàttali leen fal dañuy jox kàddu gi dam Mbodj moom également mu def discours am pour trois minutes yow jox nga ñëpp parole te joxoo leen temps man nga jox ma temps lu ko waral jërëjëf jërëjëf asalaamaaleykum waa Ziguinchor asalaamualeykum waa Oussouye asalaamualeykum waa Bignona tey ñëw naa ci région région boo xam ne région bu ma miin la xam ngeen ni ci sama carrière fii ci région de Ziguinchor a commencé par Oussouye falaa def juróom benni at au lycée Aline Sitoé Diatta d'Oussouye ma formé plusieurs générations fii ci Casamance jaabante fu ne ci région Casamance xam Casamance xam jikkoy waa Casamance xam baax xam liggéey xam bëgg Sénégal ci waa Casamance loolu laa mën a seede fii tey ci Ziguinchor may wax ne bi campagne bi commencé léegi ñu bari ñu ngi naan Dame Mbodj moom fan la nekk gis naa ne yéen a ngi may laaj ci réseaux sociaux yi fu ne ñu fay laajte Dame Mbodj fu mu nekk ku ne xam na ni campagne bi su dooree te gisuñu Dame xam leen ne am na lu ko téye li ma téye woon nag ci liggéey bi dong la comme man dañ maa jox infrastructure yi ca jam ñaajo ñu war a def Jeux olympiques en 2026 Sénégal war koo aaye ambassade bu Chine ni ma dañ laa bëgg a yóbbu Chine tàggat la gën laa jox xam-xam pour nga waajal 2026 lii moo ma yóbbu woon Chine kon nag ma leen di xamal ni tey kontaan naa fii ma ñëw ci Ziguinchor ndaxte Ziguinchor saa su ma fi ñëwee ñu teral ma ndaxte Ziguinchor sama kër la Ziguinchor fii laa am Ziguinchor fii laa liggéeye bañ yóbbu ma Ndakaaru kon Ziguinchor ca kaw ca kanam Ziguinchor ca kaw ca kanam maintenant li may wax lu gàtt la élection bi man bi may ñëw ci élection présidentielle yi dafa am ku ma fekk kër président Ousmane Sonko may reer mu ne ma Dame dama laa soxla ma ñëw ñu toog ñaaroo mu ne ma ñaari weer ci ginnaaw sama soxna dafa am doom ma tudde la ko ndax bëgg ci yow mi ngi fii ci Ziguinchor su ma leen joxoon turam ngeen xam ban quartier la dëkk ma dellu Ndakaaru comme man ji jigéen laa am ku ne ma dama am ay seex tudde kenn ki Ousmane Sonko tudde keneen ki Dame ma kontaan lool ca Ndakaaru président Ousmane Sonko li mu am ciy turandoo moom sax xamu ko ndaxte man mii rek ci cofeel gin jàpp ni te ma wone ko maak Ousmane Sonko am nañ ko am naa juróom-ñaari turandoo yoo xam ni ci biir xeex bi laa ko amee te ñi ma ko tuddee ci diaspora bi lañ nekk ñi nekk ndakaaru fii ci Ziguinchor benn mi ngi fi Kolda ak région yu bari ñu tudde ma doom ndax nee nañ taxawaay bi président Ousmane Sonko am pour Sénégal bëgg a Sénégal tegaat ko ci yoon yow Damboj da nga bokk ci ñi koy xeex xeexle kon cofeel gi nu am ci Ousmane Sonko lañ ma jox man Damboj kon loolu maa ngi koy sant yàlla di ko sant moom président Ousmane temps yi nag bi ma nekkee gis naa ni Sonko Sonkolu moo xew ci dëkk bi damaa gis koo xam ni dafa gis turandoo Ousmane Sonko ñu jox ko ci meeting xale bi ñu jox ko rek xale bi ree ndeysaan moom mu fexe ba jox ko ab xale ci ab meeting am boo xam si fukki nit ña fa nekk sax matuñu ko mu jokkutaan xale bi pour xale bi ree mani nee naa tey bi may waxtaan ak sunu tête de liste à Dakar sunu tête de liste à Dakar Abbas Fall dañu waxtaan sànq téléphone ma ne ko Abbas yaag waa ji du mat li baaxoon mooy ngeen jël ku kenn xamul ci cellule Ndakaaru yu Pastef yi ñu dem ak moom ñu duma ko duma yu leer nañ yu kenn dul werante kon yaag moom du mat kon nag ñun dañoo bëgg a wax pour daaneel ni Sénégal am ngeen une occasion historique d'enterrer définitivement le système qui est là depuis 1960 te ñoom dajaloo nañ dajaloo nañ dajaloo nañ ndaxte ñu yàq Sénégal depuis 1960 64 ans le parti socialiste 40 ans le PDS 12 ans l'APR et Benno Bokk Yaakaar 12 ans muy 64 ans ñoom ñépp àndandoo nañ def yenn dànk pour yombalal ko Sénégalais ñu jël leen buub leen sànni leen ci àll ba teg fii ñoo xam ni dañuy ànd accompagner le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko ñu tegaat réew mi teg ko ci jub jubal ak jubanti maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam mon frère merci beaucoup dame merci beaucoup de l'engagement et de la sincérité léegi nag dañuy jël kàddu gi jox ko une dame une linguère borom focus kan mooy borom focus kan mooy borom focus